Mitte TV, Mitte TV. Mitte TV, TV.

ñu ngi gërëm bu baax Pa Moussa Camara muy toog parce tey heure bu ñu heure gis ko heure bu suñu bët gis ko te nit amul dara loo xamante ne ko def mu bokkal ak sant koo xamante ne nii war na ko sant donc na leer ñu ngi gërëm maire bi toog maire Diané bu baax parce que kii kii dama ñu bëgg dama ñu bëgg loolu ba pare dañu ko woon ñu war a ba taxaw wax ñu carrément lu leer a leer a leer ngir yàlla war suul yéen ñiy jël di dem 110 ak ak 2000 francs lan la boo ko mënee ba rees am ko jàppal lañ te yàlla tax voté leen jëy na te yàlla tax mani mani mani tey jii nii amuñu dara dara dara loo xamante ni wane nga pour waat lu dul voté jëy na ma jaay ak Pape Moussa Camara bi ñu ngi gërëm bu baax ay resek mi toog parce que tamit lu ñu naan naan naar bu gisee naar ne naar a ngi mais kii naar bu pire te tamit ñu ngi wax lu leer nañu te ñëpp tamit dañ ko yëg nañ nga xam mooy lan xam naa ko bu bàyyi liste bi ne voté beneen liste mooy rey nga sa bopp jël nga baax kati sa geen kati sa baat dem sa yoon te ku bàyyi fii voté keneen mooy rey nga sa bopp te ngir yàlla bu leen ñu rey te jàpp leen ala rek tax bu ñu kenn rey jàppal leen ko dañoo sonn bu ñu xëyee tey dinañ toog ñetti fan duñu xëy oto yi amuñu benn oto buñ jël ba dem ndax sonn ngir yàlla dimbali leen ñu ngeen voté ki jara voté ki ki nga xamante ba nga fi tegee ba nga fi tegee ba tey gisuñu ko xaw ma asam jaara xaw ma ñëw na fa keroog naan day mitin xaw ma day mitin waaye doonul mitin foofu mitin dina fa gët merci beaucoup tey moom moo waroon tey jël liste gëm sa bopp bi dema ak moom waaye mu jël ko ne man yow sama càmmiñ doy nga ma ci Pape Moussa yow laay jiital yow ak Dieynaba Ndiaye tey yow nga jiite liste pro euh, majoritaire bi Dieynaba jiitu si liste euh, proportionnel bi vraiment loolu mu nekk loo xamante ne ku amul grandeur doo ko def te moom am na grandeur boobu ba jël ay cëram. macha allah. loolu vraiment dañ koy sant di ko si gërëm di leen remercier encore une fois di waxaat encore ak population bi sànq boo leen déggee suñu rakk yi ak suñu jarbaat yi ñëw jël kàddu ñëw toog fii ñaax nañ leen yéen ñi nga xam ne yéen seen yaay na ngeen bàyyi ñoom ñu tànnal leen candidat bi nga xamante ne ñoom moom la ñu bëgg ngeen votel ko te loolu nag responsabilité bi ci nekk tey moom mooy ñoom doom yi ñoo ngi leen di bëgg wax ni yeen yaay yi ñoom seen avenir moo ngi bokk si ngeen amal leen kilifa bu ngeen di tànnal bu leen wara a jiite ndax waroo leen sukkandiku léegi si ay 2000 francs wala si ay junni yu ngeen di may wala si ay ñëw la ñu may leen ay financement dépassé ngeen loolu ndax seen i ay avenir doom dafa ëpp financement dafa ëpp ay kii donc war ngeen mën a am taxawaay boo xamante ne da ngeen di bàyyi xel seen i avenir doom. ndax yaay bu jël kàttan dem taxaw si pañ gàcce ba war a jël pour voter war na mën a xalaat doomam bi nga xamante ne amul at voter mu bàyyi ko xel xam ne moom moo ko war a voter te loolu pour mu voter ko moo ngi jël responsabilité boobu noonu war ko mën a jiital si xelam xam ne moom moo war a tànnal kooku njiit bu ko war a yilif donc bu leen yem ci kër yi ngeen yaakaar ni seen responsabilité si kër yi lay yem seen responsabilité romb na kër yi mais dafa dugg si biir société bi te société boobu noonu nag mënuñu ko wax génne seen i ay doom ndax ëllëg bëgg ngeen seen doom am ay liggéeykaay bëgg ngeen seen doom yi am fu ñuy fu ñuy suturloo mais bëgg ngeen seen i ay doom aussi tamit taxaw taxawaay boo xamante ne ñu fajal seen i way juuri seen i ay Euh, jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy gis si ñoom te ngeen di jóg saa su ne di doxi fajar guddi ak bëccëg ngir lan bànneexu njaboot boobu kon bàyyi leen xel njaboot boobu yéen yaay yi yam fii sànq ñoo leen koy wax carte yi dem leen ngeen jëli ko boo leen ne da ngeen bëgg a jàppale coalition bii nga xamante ne mooy la grande coalition de Kër Massar noor te mënoo leen dem jëli seen carte jaralu leen ko daanaka day mel ni ko li ngeen di taxaw fii di ko wax wala seen toogaay bi ngeen toog nii daanaka mën naa ne moom ak zéro ñooy yem dem leen ngeen jëli seen carte yi au soir du 23 janvier ñu ñëw toogaat fii tant tant bu rëy ci digg Kër Massar. waaw coalition bi nga xamante ne moom mooy coalition bi. gañe na ndar li te loolu la ñu bëgg manu wax na leen ko léegi yeneen ko dégg si ay kàddoom nee na leen. coalition bii moo yëngal Kër Massar coalition bii moo diital Kër Massar coalition bii moom moo yëngal tey par exemple waxuma la kii mais palais de la république da kaa yëngal ndax yeewatuñu nelawatuñu ndax xam naa ni am nañu tey sañ-sañ boo xamante ne tey lu nekk ñoo koy jéem pour yàq tey li nga xamante ne moom mooy coalition waaye ñun Kër Massar mooy ñor suñu bopp suñuy poos taxuñoo jóg yitteeluñu ndax bu nekkon tay suñu poche ak suñu mbop rek la yaakaar naa maire Dieng ba Ndiaye mii ci këram bi lay tok do la ko gis ci mbedd bi muy taxaw di wax ak yeen du sonu du genn ci mbedd bi man mi di wax ak yeen sama kër nay tok duma genn ci mbedd bi ta du ma ko bay wax ak yeen mais Kër massa bi lañu bëgg jubante jubbante dañ ko bëgg jëlé ci loxo yi mu nekk Kër massa dañu sonn Kër massa ñu ngi tumu rank ci lepp suñu jeunesse ñu ngi fi di taxawaalu ASC e yi nga xamanteni ñu nekk biir Kër massa fi plus particulièrement Kër massa Nord amuñu terrain boo xamante ne sax mën nañ fi footballer amuñu terrain gazon amuñu dara. donc ASC ñu bëgg leen a jàppale tamit si côté boobu noonu am ay programme yu important yoo xamante ne tey ñoo ngi ko jël teg ko tey si euh, teg ko si programme nga xamante ne tey moom la waa Kër Massar yëpp di rêvé te incha allahu rabi bés boo la ñu joxee dëkk bi dingeen ngeen xam ne jox ngeen ko ñu jar a jox. mais di ngeen yëg ni tamit jox ngeen ko ndax tamit ñii nga xamante ne tey seen loxo jotul seen ginnaaw te ñu leen di jàppale war nañ leen dimbali si social bi c'est parce que tamit ku wax mairie xam ne mairie mën naa ne 30 pour cent si li nga xamante ne moom la joué war a joué si population bi social la war a nekk te social boobu noonu fas yéene nañ ko delloo ñii nga xamante ni ñoom ñoo ko moom. ndax dëkk bi dafa am ñoo xamante ne tey dañoo yelloo seen cër bu ñu xëyul gontuñu tamit war nañ jël seen wàll ci li nga xamante ne ñoom ñoo ko moom loolu nag mënuñu ko wax mukk te ku mel ni na ba Ndiaye mënul nekk fii nga ne dangay jël mbir mi di ko dénk keneen boo leen ko ko dénkoon yaakaar naa dërëm du dugg si këram bii boo leen ko ko dénkoon yaakaar naa tey benn pepp ceeb wala saaku diwlin wala lu mu mën a doon

Wow, okay. Wow, wow. Turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, turn up, Yes. போட்டு இருக்கு moo féetee ana asu Paula, Célibataire yi du sel lañu sàngoo. Man bañ ci no so hard. Yes, so hard. TV, Mite TV. Mite TV, Mite TV.